waay féexal sa xol ah, original neexal bu te am na original pur jus de fruits ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy taw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu corniche ouest bi. jur ataaya ak Sador. merci beaucoup. mère. yaa ngi noppale saa yi. mère ma jama. kontaan naa. daal bi sëriñ Mansour bi. daal bi sëriñ Babacar Si. lu wér. waaw loolu lay jëm a taxal de. mais nag naa leen ko dugal te kii kilifa la ci réew mi. ah dugal kii kilifa la ci mbir yi waaye defal naa kii modèle la defal naa kii modèle la. doo bay moom. taay dugal ci te de diggante mbir a wax nga ma doo a bàyyi moom. parce que temps yi maa lay dégg. waaw maa lay dégg temps yi. waaw booy bi Lamine dina jëm a sërëxal. dina dugal ci ay gaam te gaam yooyu boo ci duggee da ngay daal bu mu du Lamine xam nga yow xarit man dama ah, dama loolu ay téléphone yi. ah xam ah, nga loolu naa la jël ci kon man nag du ma defar naa defar naa non sama xarit nga ah. sama xarit nga te dama la bëgg. Mansour Diop buy wax. toujours dafa nekk avocat mbëru yi. loolu ñëpp xam nañ ko. kii mënumaa wax loo dara ci mbiru lamb. man dama la wax lu dara sax da lay dugg da lay dégaame da lay dugg ci ay gaam yoo xam ne. waaw léegi su ma demee ba Lamine mi nga xam ne si nitu daara la di ma di ma dégaame est-ce que dana mën a sotti. non Lamine suñu père la bëgg a dugal. non mënu ko. père yow yaa ko wane ko police nga. bu ma yàqal. waaw Lamine. waaw moo ma woo tiital ma ba sama tension waay. nga ni nga ni. moo ma woo tiital ma ba sama tension waay. Balla mi. weeru sëñ bi Pape Mouhamed lañ nekk a dal. dañuy ne ci gàllankoor bi di indi ay paquet ngeen ko loolu nag ci nuyoo te nuyoo. waaw d'accord mais fay mooy sa farata. xam nga xam nga xam nga lii xam nga toogaay bi man daf ma ñor. daf ma intéressé ba nga fekk ko. ñaar ñi yàgg nañoo toog de ñi. ay déglu ma fii. Gris Bordeaux toog nii Balla Gaye toog nii loolu daf lay wane la nekk ci biir suuf ma jaba jab toog nii dafa lay wane la voilà daf lay wane la sport bi ku dugg ci diggante mbëru làmb yi perte nga yàq nga ñooy am seen xaalis mais bu seen xaalis jeexee làmb ja bu jeexee seen cordon bu jeexee ay jàpp jàpp la ñu leen rek ma metti non waxoo ko pour seen dara waaw la waaw dëgg la te bariwul tey ah. ay magul làmb ah. ñu ngi yow effectivement dëgg la loolu dëgg la solee sa xam ne yow mii kat waaw maanaam tey da nga nekk nit ko am couleur parce que mbir làmb parce que tey tudd mbir làmb ma gën xeex lamb moo xam làmb teral la moo xam xam mu ñàkk la teral parce que làmb nekkul ñëpp ci gàncax nekkul ñëpp ci gis seen bopp am na ñu si gis seen bopp si gis seen bopp dëgg la waaye tey dafa am loo xam ne tey bu la ko yàlla jagale jaglele mbir mi saa yu amee jafe-jafe tey da nga ci war a yëkkati sa kàddu. maanaam li ngay def noonu laa la wax dañ ko doon dañ sa ay ñoo xam ne tey dañ ko doon séntu sa morom moo tax yow tey mbir mi mënu la defal lu dul delloo lu njukkal. merci beaucoup jërëjëf. parce que saa saa yoo waxee. da nga wax ci intérêt mbër. merci te mbër lii muy wax ak yow ñàkk ndey ñàkk bàyyi ñàkk nijaay. Ah, jafe-jafe yi mbëri dund ah, mais yéen yéen jafe-jafe yi mbëri dund mais loolu loolu loolu loolu du mbiru benn nit ay nit la loolu mbir benn képp ku ci bokk rek képp ku ci bokk ku ci takk ngemb tey làmb wa làmb warul sëngeem wala mbër nekk ci xat-xat wala ci jafe-jafe te ñu doo yëkkati sa kàddu du yoon parce que làmb ñëpp mënuñu ci teel am nañu si yàlla teral am nañu si yàlla teralu parce wërsëg moo mel noonu ñii nii tey seen jamono nii ñu doon daj ko nii bëri ay 300 combats ay 400 combats ñu ngi lay fi bëri sax mooy dama bàyyi. voilà ñu làmb fay la suñu ngaral. te gis ñu dara amuñu ko. dina bëri ñaari dimanche yu tax 87 combats ci lu ma xam dama bàyyi. yëpp est-ce que dóor la. ah waaye yow man damaa sëbëre sax rek. kii lu wax naa est-ce que dóor li ma toll ñu la nit daara nga. mais mais mais père Pa laa ngi nii. Ah. avance bu avance bu mu lay wax bu nga bañ ko jël loolu la laa bëgg xam dama bëgg mu leer fi tey. <laughs> per nga ngénte ba pare dara desul ci poos bi weer paa la nga wax ko mën a no jël avance bi de dëgg la de mais mais mais nag histoire boobu dañ ñu def code de man ba léegi amuma suuf bi lu meloon dañ ko dañ ko day yàgg mais fu mujjee leer mais après per ah, la réagir da koo bëri ji waaw ah, après da koo bëri ji ah, est-ce que est-ce que ànd naa ak moom mënu ma woon bañ a ànd ak moom non par force lay dem waaw mu dem sa ko neexee wala dem bu ko naxari na dem mu dem ci màgg rek mais nag mais nag xam ko fu mu nangoo. bi ñu jógee ba ñibbisi. ba ñibbisi. ak si ba jam ñaajo. mu gis ma yor quatre cent mille. mu ne ma ah sama waa ji bu ci baax de. loolu la sa waay quatre cent mille jamono quatre cent mille jamono jooju. waaw ah. quatre cent mille jamono jooju. billaahi quatre cent mille jamono mel ni actuellement cinq cent millions. avance quatre cent laa jël. waaw bisu alxames. jël avance quatre cent bisu alxames. waaw ah. àjjuma samedi dimanche ma dem bëri ji ko daal. seen def ci dara. non diggawuñu ma daf ma tax ñu may dagg. <laughs> yaa ngi dégg mooy mooy jox ma kàttan. waaw muy wis. sa boos waaw. non da ngaa dégg da ngaa da ngaa dégg. xam nga am na am na caaxaan. mais nag mën naa la naka yaram bi yaa ngi jàmm dégg naa la. dégg naa ne coow li mais bu ci am la métti yow ñëpp la xam ci nangoo liggéey am jom am fu la kon nag gis nga kii soxor da nga koy bàyyi muy soxla di wax lu ñaaw bàyyi ko muy wax lu ñaaw yow nga kon na liggéey bul la dox ci diggu làmb ji nga njaab dóor kër faas bu wàcc ba ci kootu taat ko la ko kenn tré defoon liggéey def rek jàpp sa jàmm mënuñu ko faalewuñ ko faalewuñ ko

cey seen. Eh, ñoom ñaata xam naa ne. buñ buñ àndee coono buñ tàqale ko coono. <laughs> man man bu ñu waree bëri xam nga li ñuy def. ànd ànd bëriwul lu koy def coono. man daal li ma jaaxal moom. bu ngeen di bëri ngeen def laa ko. waaw yaa ngi dem ci ay waay lañ de ay waay lañ mais bu ñuy bëree dañuy tànn. non nii rafet na loolu. mais troisième combat est-ce que mën naa am. non ba tamit ñu ñu zéro quoi. boo amee tamit ñu zéro quoi. empereur bi empereur bi nga topp nga topp. gi jaaxal na ma wax leen ña ngay def. boo soobee benn bë benn benn bët bu jàkkaarloo ak ni ko tiitaloon. tension bi wàcc. ale day wax lu ko wóor. sama kanam la la woo ma rek nga man lay ñëwee dama ne nga boole maa ngi waaw. Père Palla jël na kudd. waaw xam nga xam nga moom moom maa koy may bës loolu la xam moo tax. non directeur wax na ma ko barki démb ci Lutte TV barki démb bi Lutte TV di def seen ouverture nee na ma révélation bi yow la. ma ne ko def sa bopp révélation. non directeur moo ko wax. ma ne ko nag Lamine laa ci àndal. waaye waxal ak moom non non yow yow mag bu ne yow nga naan révélation. ah révélation fu ci côté yëpp la. yow looy loo ciy indee mag ak xale. aywa ah, lekkal. borom gàmmu gi. tubaarkàlla macha allah borom gàmmu gi. waaye maa ngi nii ëppee grand champion. maa ngi lay ziar sant yàlla. waaw Paa la. maa ngi ziar weer ndax fàttaliku nga benn combat Lirou Diane. ndax fàttaliku nga ay combat. xam nga xam nga si Lirou Diane nag xam nga man xale la ci man. Hmm. te man bi may jóge fii di dem ba mu fekk ñuy ñuy ay ñëpp ay boy lañu. ah Lirou Diane ba ngay ba ngay. daal di daal di. yow xam nga daal di ah. ah. li mooy nax sa ndax sa goro ndax dafa tàng waaw. sa goro bi ci ban ban bi nekk golf wala bi nekk. mais léegi dégg naa marque bi jàll la. lu mu doon pël ñeme la. yow loolu naqari naqari ma. ba pare nga demoon. non bu ñu dugg ci loolu. loolu am na loo xam ne ay gars yi xarit nga. ay gars yi nga te sama chéri nga. ay gars yi nga ay love you too. dégg loolu. <laughs> loolu foor na yow yii rek nga yàkkamti tontu woo ko de pël yii nga liiru sama xarit la dañoo yàgg liiru yee waaye léegi duñ dem Kaolack duñ dem Kaolack ankay waaw damay suba si fajar suba si fajar xanaa yow naroo xolli soble ankay non damay dem Kaolack suba laay dem suba. original 100% pur jus de fruits. Sénégal ka fay kan gi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw. ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy daw leen gaaw consulter suñu site www point Eric Favre tiret nation point sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest